maaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu bokki jullit yi bokki di nuyu ci turu Cheikh Moustapha jëwriñu Cheikh Mouhamadou Amine Bara Mbacké di leen jottali ay kàddu di leen ay kàddu yoo xam ni ci moom lu tukkee ci njabootu Cheikh Sidi Moukhtar njabootu Cheikh Sidi Moukhtar gi yëpp sëriñ ñu ngi leen di nuyu bu baax di fàttali li nga xam ni fàttewuñu ko muy njaboot Cheikh Sidi Kip rawat di taalibe di Kip ko xamante ni jokkoon nga ci Cheikh Sidi Mokhtar muy sa buntu ci Serigne Touba moom mii di Cheikh Mustafa mooy se jëw yi kon kaddu yi ñu bëgg a tàbbal kaddu yi nga xamante ni moom la ñu bëgg yëglé képp koo xamante ni da nga aju woon ci Cheikh Sidi Muxtaar sëriñ bi dafa sàkku ci mbooleem taalibe yi yi nga xam ne ñoo aju woon ci Cheikh Sidi Muxtaar kenn ku nekk ci yéen mu bëgg a taxawal daayira boo xamante ni taxawoon na naka jëkk ci ndigalu Cheikh Sidi Muxtaar Cheikh Moustapha nag eh, loolee moom lay yeesal fu waay mën a nekk moo xam biir réew mi moo xam bitim réew ñu ngi lay soññ ci li nga xamante ni mooy daayira boobu daayira bi nag dañ koo bëgg taxawal ci ndigalu Cheikh Moustapha di ci woo ñëpp mag ak ndaw góor jigéen kenn ku nekk euh, fa nga ca féete nga soññi sa kër ci ndigal loolu sëriñ bi joxe loolu daal sëriñ bi ñu ngi ci woon ñëpp jigéen mag ndaw tamit njaboot Cheikh Sidi Mokhtar bi nga xamante ne njaboot Cheikh Sidi Mokhtar moo ko tax a bi nga xamante ni moom lañu dëgmal bi fukki fan ak ñaar ci weeru koor rawatina bis boobu sëriñ bi nag di sàkku ci ñëpp kenn ku nekk balaa bis boobu nga fas yéene la nga xamante ni mooy sa taxawaay ci bis bi foo mën di nekk kenn ku nekk nga fas yéene koo waajal te xam ni sëriñ bi joxe na ndigal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu